la ca des yëpp échauffement la woon défi baa ngi doog a commencé li tax défi bi door a commencé mooy li ñu diglanteeg Sénégalais yi taalaa kulli xaal dañ ko def incha allah muy benn waaye ñëpp xam nañ ni li tax ñu mën ko def xeex bu rëy la ñaareel bi mooy nguur dafa ànd ak tentation nit dina taxaw tey bëgg laa laaj loo xam ne xelam xalaatul woon mu laaj la ko démb lan moo tax parce que jàpp na ni fi mu toll nii euh, war ngaa diis te fekk tey nga gën a oyof nag bu dee rek da nga yor jaarale ko ci yoon moo tax liggéey bi dëgg-dëgg mu ngi door kon daje bi du rek pour ne ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di remercier parce que liggéey bi am na solo te production artistique dafa dafa. mën na yóbbu mbir fu ko leneen mënul yóbbu dafa am solo kenn ku ne ci yéen mënul xam li mu jot produir moom ban impact la am ci liggéey bi parce que am na koo xam ne peut-être discours Ousmane Sonko sax du ko déglu wala su koy déglu du ci comprendre dara waaye bu gisee kenn ci yéen taxaw jaarale ko ci beneen yoon ci lay gën a am attention pour déglu. loolu dafa am solo ci liggéey bi moo tax seen contribution euh, apprécier nañ ko à sa juste valeur ñu leen ci félicité bu baax parce que it kenn ku ne ci yéen bi muy jël engagement am amaana am na fu gënoon a tooy foofu su fa demoon poosam dina diis lool lool lool ci jamono joo xam ne ñun suñu dara leeruloon bëri na loo xam ne am na fii ñoo xam ne 2017 la ñu génne seen clip suñu première élection législative kenn xamuñu woon maa ngi fàttaliku lan euh, euh, ñi way Sonko neexu lenam dëggu ñoom ñoo njëkk a génne defe naa 2017 ak euh, beneen son boo xam ne Casamance la buñ daan def suñu campagne yor suñu pick boobu yooyu lañ ci daan teg loolu yàgg na ba ñu génnee te jamono bi ñuy génnee man ak président Diomaye ñu ngi fii tëdd à côté naan après laa doon gis yu bëree bëree bëri bëri te xaw ma leen xamuñu ma loolu c'est très appréciable te xam naa ni benn bu nekk benn bu nekk ci li ñu produire am na impact bu mu am ci mbir mi kon ñu ngi leen ciy félicité bu baax waaye loolu mooy li gën a ne tuuti ci li tax ma ne nañu daje tey li tax ma ne nañu daje tey point de départ la ci la reprise des activités politiques ñu yaakaaroon ni léegi poste premier ministre tax na Sonko amatul jot politique ba ñu ne ci <laughs> comme on dit quand le ñu nekk ci di cëppi cëppi dañu xam ni activité politique yi reprendre te xamante nañu nag euh, xamante nañu bu baax bugguma ci wax lu ëpp waaye nañu xam ni activité politique yi reprendre na te daje bi mooy départ bi yeneen composante yëpp nitu diine yi nga xam ne ñëpp gis nañ seen taxawaay ci télé yi ci rajo yi demee noonu bu soobee yàlla bu ñu jógee ci màgg gi naa leen dalal ñoom sax defe naa du lay def ci ak ñoom parce que artistes yi ñemewuma seeni i dànq bañ dépense bi xaw a bëri euh, jeunesse bi yenn organisation de jeunesse yenn organisation féminine en tout les compo loolu bokkul ak les activités les actions sur le terrain parce que man nag tëju ci bureau yi taal clim man xaw ma ko de waaw lañ ci war a def nag dañ ko def jaadu woon na ci lii ñu traversé ñu ne la réew ngi nii ak réew ni mu toll nga war koo jël ci condition xam ne néew na Sénégalais yi xam li xew waaye dinañ ko xam ci fan yu néew soreetul waaw eh, teel jaru ko woon jaru ko woon léegi mbir yëpp leer bu soobee yàlla mais jaadu woon na ci conditions yi ñu jël un de temps ci gannaaw son excellence le président Bassirou Diomaye Faye daal di sëgg tuuti ci liggéeyu état bi parce que nit ci jamono ju ne da nga war a xam lan mooy farata lan mooy sunna lan mooy dal bu farata jotee nga bokk fi dem def sun sunna xamal ni euh, amoo dara wala amoo lu bari ba ñu sénégalais dénkee réew mi la ñuy xaar ci ñun tey di ko xaar ci ñun dans deux ans di ko xaar ci ñun dans cinq ans mooy lan la ñu def ci réew mi loolu la Sénégalais yi di xaar ci te Sénégalais yi nag ëpp nañu Pastef la ñu ànd ci pouvoir la ciy sympathisant moo ci ëpp li ciy partisan parce que noonu la politique di doxe dans tous les pays du monde bëri na ay sénégalais yoo xam ne faruñu ci benn parti jëluñu carte membre benn parti waaye dañuy seet d'une élection à une autre ñu seet lan moo leen doy li ëpp ci ñu voté pour ñun en deux mille vingt quatre boo moytul deux mille vingt neuf keneen la ñu voté lool deux mille dix neuf keneen la ñu lool deux mille dix il faut pas qu'on se trompe. xam ni lañ ñu dénk ëpp na parti politique donc suñu dénkoon càmbaraguñu réew mi defaguñu état des lieux bi xamuñu lu baax ak lu bon xamuñu yàqu bi fan la toll ñu bàyyi loolu yépp nekk ci mbirum parti politique def naa Sénégal yi nañ ñu gaaw a jéppi moo tax dégg nañ ñu ne ndax par essence sénégalais moo impact ci ñaari weer ñetti weer nit mun a taxaw ne déggatuma gaay gisatuma gaay won nañ ñu gannaaw waa gaay ci lan la ñu nekkoon ña ngay xëy fajar ba deux heures du matin nekk ci li tax sénégalais yi wóoluñu ci loolu la ñu nekkoon loolu doo ko fi bàyyi naan maa ngi accordé ay audience à des militants ngoon bëgg lu neex militants yi du tax ñu def ko ndax nag bu ñu fàtte suñu contrat dans le parti politique mooy on a toujours été très clair avec les militants chaque chose en son temps kon jaadu woon na ci weer yooyu weesu te jeexagul sax ñu sëgg ci lool yàlla may nañu ñu liggéey ci lu ama am solo dégg naa ñenn ñi naan amuñu programme ils ont vendu un rêve aux Sénégalais <laughs> dinañu gis ci fan yi ci ñetti temps nag ndax nun lu ñu mus a def dañ ko teg ci stratégie suñ leen puusalee benn te noonu la mus a doxe xanaa léeg-léeg nit ñi xaw a gàtt souvenir rek waaye ni ñu doxalee ba egsi ci élection ba yàlla jox ñu ko rek war na ñu xam ni ñun duñu ay como te dañuy liggéey teg ko ci temps teg ko ci stratégie te noonu lañuy ñuy yoree bi moo tax ñu ngi ci temps évaluation état des te bu ñu sottee ba ne Sénégalais yi lii lii fi ne ragal naa am na ñoo xam dootuñu génn ci réew mi de dootuñu jox ci mbedd mi moo tax teel wax ji jaru ko wala dañoo santiir ni mu ngay ñëw ñu gaawantu njëkkante tere yi takk seeni rajo waaye jaru ko. dinañu wax sénégalais yi fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek ma ko waxee nag xam naa xam naa ni am na am na ñu dul nelaw tey ndax xam nga ma yàlla may na mu lu tuuti sama diggante gaay duma leen déglu duma leen seetaan toppatoo lu ñuy def waaye defe naa suñu xëyee soo bëggoon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal la soo ko ma leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii mu ñëw ubbil ma bureau bi bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn lay yàq projet bi mën na jóge ci ñëpp ñëpp ba mu des ñun ma dalal nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi ñu leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a fort en même temps mooy ay ndaw ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal change